femme dafa bëgg à partir de ren ji ñu nekk entreprise yi sóoraale si question égalité des sexes ak euh, autonomisation des femmes ñu xool fexe ba fépp foo xam ne entreprise am na fa entreprise yooyu li nga xam ne dañ koy am ñoom ci koom-koom ñu mën ci investiraat liggéeyaat ci wàllu droit des femmes ñu boole ko ci seen ci seen investissement loolu la ñu tàmbali ren moo tax ñu bokk ci initiative RSE bi ñu jagleel ko jigéen ñi te yaakaar nañ ni ren la tàmbali waaye day gën a yokk bu soobee yàlla dañuy fexe ba entreprise yi ci li nga xam ne moom loolu mooy seen am-am dañuy fexe ba di ci investir bërëb yi nga xam ne foofu lañ nekk xool naka la ñuy gën a jàppale jigéen ñi dooleel leen fexe tamit ba méttit yi nga xam ne day dal jigéen ñi ci bërëb yooyu ñoom ñu liggéey si pour mu mën a wàññi. nga xam dañu bugg fexe. ay ndaw yu jigéen euh, daal di présenter ay projet d'entreprise ay plan d'affaires yoo xam ne thématique bi mooy euh, écotourisme lu ci mel ni ambassade Canada ngeen xam ne ay activité am ci wàllu mine euh, lu ñu ràññee ci àdduna bi ñoom it bëgg nañ am taxawaay boo xam ne dañuy feeñal lan mooy nattu yi dal jigéen ñi ci biir liggéeyu ci mine yi wala nattu yi leen di dal Euh, ci environnement bi nga xam ne moom mooy euh, moom mooy encadre mine yi waxtaan yooyu nag am na solo lool waaye am na solo tamit ci ñun ville de en tant que partenaire pour initiative RSE ndax depuis quelques mois ville de Guédiawaye ak initiative RSE tàmbali nañ di liggéey jokkaloo joxante loxo activité bu ci njëkk mooy tournoi football bu ñu organisé te bu rassemblé woon une quinzaine d' entreprises fële ci stade du Barry tey jii ñu ñëw bokk ci forum bi waaye ëllëg ñu fas yéene développer benn projet bu am solo boo xam ne ñu ngi koy wooyee pro banlieue di projet boo xam ne dafay boole ay njàngaan ci wàllu formation professionnelle boole ay entreprise boole ay volontaire ak ville de Guédiawaye ñu jagleel ko defaraat école yi nga xam ne ñu ngi ci biir Guédiawaye